Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak Zahra Iyane Thiam nekk candidate ca mairie bu Sicap Liberté ñoo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi réew mi ko di jeex xëy séeq waxtaan wu yaato ak Zahra Iyane Thiam nga xam ne mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ci Sicap Liberté daan nay wax ne moom jàpp na ne mooy gagné li nga xam ne mooy élection locale yi commune bu Sicap Liberté nee na lii nga xam ne moom la gis ci terrain bi xelam daan na si doy te nee na jàpp na ne programme bi nga xam ne daan na koy wax journal bi di réew mi quotidien moom Zahra Iyane Thiam bi ñu ko laajee ne ko ndax xalaatoo ne boo ñàkkee élection yi da nga génn gouvernement bi moom nee na benn yoon boo xam ne dina ko xalaat ne dina ñàkkee élection yi doo am ndax dafa jàpp ne daf koy gagné loolee la jàpp daat nay wax ci lu jëm ci wàllum violence bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci élection yi nee na violence maanaam amul place ci li nga xam ne mooy campagne électorale bi yéen a kaay gi di les échos xëy dañu xibaar naan ñu Médina jamono ji jax na ba maara de taal yi na ñi nga xam ne ñoo ànd ak Cheikh nga xam ne ñoo ànd ak Bamba maanaam ñoo nga fay xiiroo ñoo nga fay ŋaayoo ñoo nga fay defante defante boo xam ne jéggi na dayoo jàppante ya fay jàppante na ko yàlla umpa yéen kay gi ñu xëy fekk fa Aliou Sall rekk njiitu réew mi daat na yàq musiba ak ki nga xam ne moom la génn njiitul Pastef dafa waxoon ne Lat ak Aliou Sall ay sàcc la ñu bis bu nu yoree réew mi dinañu leen jëlee yóbbu leen sa kasu kàddu yooyu nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati woon na ko ci la Aliou Sall xëy di a leer danger public la nee na Khalifa Sall ak Malick Gakou nan a ànd ak nit ku mel ni Ousmane Sonko moo ma jaaxal man Aliou Sall yéen a kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko muy leeral ak di faram-fàccee lan moo tax candidat Yewwi Askan Wi sa diwaanu Ziguinchor war a gañe li nga xam ne mooy élection yi ak bu ñu ko gañewul lan moo leen ca mën a fekk ay dëmboo ci biir journal bi nee na jàppante ak Macky Sall loolee munta ñàkk ay dëmboo nee na nag confrontation ak Macky Sall loolee mbir la moo xam ne mënutu ñàkk waaye nag si ñaari mbir lay am jàppante yooyu maanaam jàppante day loolee am ci li nga xam ne mooy urne yi nee ma mbañ gàcce yi wala nag ñu jàppante ci li nga xam ne mooy mbedd mi mbedd mi maanaam mbedd mi ay dëmbooj nee na am na lenn loo xamante ni maanaam munuñu ko nango ay yéen a kaay gii de la turbina nee na élection locale yi lu toll si juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaara ci ay mairie la gars di xëccoo waaye nag ñi nga xam ne ñoo koy xëccoo maanaam ay travailleur ak ay trompeur maanaam ñoo xam ne ay liggéeykat lañ waaye nag ak ñoo xam ne ay naxaatekat lañ yéen a kaay gii di direct news xëy di ñu xibaar nan ñu jamono ji nga xam ne gars yi ñoo ngi wax ci lu jëm ci wàllum politique bi lu jëm ci wàllum jàng njàng meeg njàngale me jamono ji dafa sooxe ba maara day ñi nga xam ne ñooy waa CUSEMS e ak waa SAEMS ñoo ngi waaye na kenn faaliwul la ñi nga xam ne ñooy autorité yi maanaam dañoo noppi ci mbir mi te ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi ñoom ci wàllum politique bi jamono ji moo leen yitteel ca la ñuy wax ma wax li nekk ci yéen kaay gii de la témoin nee na ñi nga xam ne ñooy waa douane dañu doon def ab patrouille ci biir géej gi jàpp benn gaal boo xam ne ay arme lañ ca fekk ay arme de guerre journal bi nee na arme yooyee bi ñu ko xayma toll na ci ñetti milliards yéen kaay gii di vox populi nee na ñetti conteneur la waa douane teg loxo yéene kaay gii di libération nee na conteneur yooyu nag Ukraine la ñu jugee yéene kaay gii di quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu pont à péage bu ñi nga xam ne ñoo ciy jaara di usagers yi ñoom nag jamono ji nee nañu tarif bi dañoo bëgg ñu daal koy wàññee ndax dañoo gis ne maanaam dafa cher yéene kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa waa ànd sàmm jikko yi ñoom nag nee nañu danañu amal daal manifestation ñaar fukki fan ci weeru février moo fi nekkoon na njiitu mi Guinée Conakry noppi ndax dafa feebar dañu ko yóbbu ngir mu faju ci yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu tey la tey bisub tey bi wuute na lool ak bis yi nga xam ne maanaam moo fi doon am fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier nee ma 18 janvier mooy anniversaire u président ba ñu Diop njiitul MEDES ci la journal bi di réew mi quotidien xëy naan ko joyeux anniversaire anniversaire bi tey la waaye nag li nga xam ne mooy variant omicron bi moo tax nit ñu néew a maanaam ñoo koy fekkee daal di koy daggal nag li nga xam ne mooy gàttu bi waaye nag ñàkk ñu daal fay waxtaane njàmbarte gi nga xamante ni def na ko